mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen rafetlu seen ànd ak Cheikh Abdou Nougoum le grand artiste comédien du Bawal dëkk fii ci Touba ginnaaw tiis bi nga xam si ni dal na ci kaw waa marché Ocass mu di lakk gu métti ga am lakk gi nag law ba laalaale ñenn ci ay xaritam ku ci mel ni Thierno Cheikh Mbaye ak képp koo xam si ni yaa ngi woon ci marché bi te lakk gi yóbbu leen ci sa wërsëg Cheikh Abdou Nougoum yëkkati ci ay kàddu ci micro xaritam Ablaye Naar le jeune l'animateur mu di kaddu yi mastaw naka noonu sant ginnaaw bi ndogal li bàyyi ko ci sunu boroom radiyallahu taala anhu mbokk yi ñu ànd teewlu kàddu yi Cheikh Abdou Nougoum yooyu le salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal man a Cheikh Abdou Nougoum Nougoum peut-être xëy na ñu xamul jëmm ji bari na waaye ñu xam làmmiñ wi bari na ñu ko xamul jëmm ji mën na am bari na waaye ñu xam kàddu gi bari na ñu daan wax ci humour di wax di reeloo nit ñi di leen bégloo waaye itam ab dëkk boo fa nekkee fekk ñëpp di say te yaay dof ba dafa fekk ni ñun amuñu lu amuñu lu dul Touba marché Ocass bi ni mu mel ku a gis na ko xam ne ñun fi lañ am ne Thierno ak ñu mel tey ba nit ñi xam ci ñoom la jaare seen mbir lakk nga xam ni boobu léegi message yi bari na ñii bu jàllee booy dañ fee war a jugee wala yu demee noonu waaye doomi julit pire saa ko jantu nattu timee na ubbi néegu muñ te dugg ci te xam ne yàllaay dogal wërsëg nag pour la ku sa numéro génn nga jot ci waaye lii ku ko xool xam ne metti na ndax itam boo dee xool message la leçon la parce que seen ay morom ñu am 20 ans jëm 40 ans barki nga gaal gi lim ray ci seen i morom ñooñu nag ñàkk ci lu ñu jàpp moo tax ñu dugg ci gaal gi ñuy góorgóorlu ba am ci luñ jàpp sans borom ñëw taal ko ak coobareem akum nattoom yàlla nag xamoo foo koy jooytoo ndax gisoo ko déggoo ko waaye muy message boo xamante si damaa bëgg ñëpp déglu ko ndax dañ daan wax ci reeloo nit ñi di bégloon nit ñi waaye te dañoo ñëw ngir wax lu ñëpp mën a dégg ndax ay porteur de voix lañ am na ñaari nit ñoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi teewlu Cheikh Abdou wala ñu ngi koy déglu wala ñu ngi koy xool ba xam ban photo la publier tey li ñuy wax mooy ñi nga xamante si nii ñoo nekk fii te nit yi àddina wala ñi nga xam ne sa borom dénk na leen koom di diggante Diourbel ak Mbacke ak ak Touba dañ jàppale boy yi nga xam ne ñoo ne woon fii da ngay dégg garant yu naan boy yi war a jóge fii pourquoi ñu naan boy yi dañoo war a jóge fii garant yi wax loolu boy yi bu ñu sañoon ay garant la ñuy doon borom borom kuy marché ambulant boo gis boo xaree xol bi bitig nga tey fekk wala magasin ñetti na nag koo xamante si nii da xëy boo wàcc tëj sa place dem sa kër war a tëdd war a liggéey ñu woo la la li nga amoon di ci suturu yàgg say waajur tàkk na ba jeex tàkk nga xam ni leçon la boo xam ni kon tey waruñoo taxaw naan booy waruñoo def li waruñoo def la ndax seen ay morom ngi jël gaal gi dem ñoom ñu sukkandiku ci marché bi di góorgóor di taaba taaba am jël yóbbu seen i waajur sàccuñu lébuñu yëfi jàmbur fii lañ nekk yor seen kër yor seen njaboot di ci góorgóorlu ngal la waaye képp ku dégg kàddu gi na nga xamante se ni bande annonce la carte yëglekaay la nañ jàppaleen jeunes yi dëkk bi metti na ku xool lii xam ne metti na am na ñoo xam ne liñ lakkale duñ ko wax te am na kon nañ dimbali jeunesse bi ndax am réew jàng moo ko war ak jeunesse xale yi buñ jaaxlee njàng amut ci réew réew ma day suux nañ dimbali ñi war a wax naan wax ndax ki war a wax boo xut ki war ta wax wax te ki war ta wax saa bu waxee wax luñ mënta dégg ki war a jëf bu ki war ta jëf jëf te ki war ta jëf saa bu jëfee loxo dem gémmiñ nañ dimbali jeunesse bi lii dafa metti tàkk ba jeex tàkk sa alal ngay toog di déglu nguur wala ngay toog di déglu kañ lañ lay wax lalaatal ak fan nga war a jëlewaat marchandise kañ ngay amaat place daaj pour wut ñi nga xamante si nii ñoom nga ñoo la yaakaar ci sa mi te góor dafa metti koo xamante si nii borom kër la bu singëmee nga njabootam gépp singëm te xuli borom kër ci kër ak kuli cin ci kër kër gum amul kër ga tas àdduna nag li ma wax rek jantum nattu la saa bu ba saa bu la bu la dalee ubbil néegu muñ te dugg ca te xam ne yàlla séddale wërsëg nag pour la ku sa numéro génn nga dem ci man Cheikh Abdou Nougoum lii may wax bu fekkonte ne sama kàddu sama doole matte na ko du ma sax wax dama yëkkati dimbali ay nit ndax sama ay miir ami ñoo xam ne man ak ñoom ñooy toog guddi ak bëccëg te tàqale ñoo ci lakkale ba jeexal tàkk

yaa ngi xool marché bi bi mu lakkee ba defub dóom quatre francs yaa ngi nii di tibb ñi nga xam ne ñoo moomoon seen place ñi ngi nii jaaxle léegi balaa ngay wax nit ki da ko toxal fi dëgg la nag dëkk bi ab la am muy xalifa général de Mouride bu nag matul deux jours nga ñëw taxaw ñu koy dindi mënoo ci dara ndax loolu la dogal te tamit boo boo yàlla dogal da nga koy nangu ndax boo namee yàlla namu nami nami yàlla nami nami nañ dimbali jeunesse bi jàppale leen teg leen loxo suturaal leen ndax am réew du xat ay xol mooy xat nañ jàppale nit ñi ngir yàlla ak rasulullahi ak jëmmi Sëriñ Tuubaa marché bi nag buñ ne marché bi dafa xat wala gone yi dañoo war a dem feneen liggéey ndax dafa xat gone yi duñ dem feneen xam nga ko waral ak ñaan bu nangoo sonal borom suñ fàlloo fi ñaan tamoo ko di si ndax ñaan gu nangu lii dafa metti na bu tabaski jotee ci marché bi la ñuy jëlee lu jënd xar màggal Tuuba bu jotee si lañu berndeel gan ñi te sinis bi lakk la lii ma ñooy dagg Touba ca kanam ñooy dagg ci carte Touba ci kanam yi daayira yi ci dëkk bi jeunesse bi ñoo ko bi sëñ bi wootee seen doole yi a dem kon nañ jàppale jeunesse bi am réew jeune ko akum njàng ñu am a dimbale nañ dimbale nit ñi na wax dëgg yàlla man tey dama triste parce que may ñii ami ma ñëw seen place daan fi toog di waxtaan ak ñoom may xool muy tàkk ba jeex loolu lu metti la man Cheikh Abdou nag maa ngi lancé message bii képp ku ko dégg da sama borom jàppale jàppale la ci koom na nga jàppale ñi nga xam nañ ci amoon luñ naan suturloo di ci dimbali na dëkk def yaram mu te rek boo yendu ñu waxtaane sab taar loolu fasu naaru góor rek la sox maag day yab ndox mam dëkkal xorom géej rek la yab waaye bu ci génne dugg meneen ndox day faatu waaye nag ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi daan daan dend ak ñii leen xam xam nañ li ñuy dund guddi métti na ndax li nga amoon waxuñu nga amaat ko waaye est fa nga daan teg dafa liggéey est-ce que da muy loo xamante si ni boo teg da nga koy xalaat boo yeewoo di ko yeew waale sa marchandise lakk sa doole jeex ngay xalaat est-ce que dinaa amaat loolu ak est-ce que dinaa tegaat nanu jàppale ndaw ñi am réew jeunesse moo ko akum akum njàng nañ leen dimbali lillaahi wa rasuli man jaayuma fi mais dafa métti ka boo waree wax war ta wax wax ku war ta wax saa bu waxee loxo dem gémmiñ kon nañ dimbali jeunesse bi ndax li métti na li xew marché maa ngi jéggalu mboolem koo xamante ne wax ji dalaa branche ndax kii wax xëy na xolam lay waxe waaye jëmma matul ñi nga xam ne